لمبتغي الرقي والسعود نو تلون بتيتي مقدماتي سرت مقدمة بيغا خمني موي مقدمي فن بيتي بطب ndax waxoon nañ leen ci darsi yi weesu ne yére yu baree baree bari day am ñaari muqaddima benn muqaddima bi dafay soxal téere bi ci boppam te lu bari moom la boroom téere bi di njëkk bind moom lay jiital ñaareelu muqaddima bi day aju ci fànn bi ci boppam muqaddimaat buy aju ci fànn nag lu bari li muy wuute min kitaabin ilaa kitaabin aaxara da gis ni muqaddimaat yi nekk fii te mu doon muqaddimaati usul da nga fekk muqaddima yu mel noonu ci jamul jawaami da fekk muqaddima yu mel noonu ci lubbul usul bu Zakaria al yi da fekk ay muqaddimaat yu mel noonu ci ay téere yu usul yu bari lool ndax la concerné muqaddimaat yooyu doonu jëmmu téere ci boppam waaye fànn bi ci boppam moo ko soxal moo tax laa yakaadu yaxtalifu min kitaabin ila kitaab la ca doon ak wuute rek lu baree bari mooy danga ci gis ku ci yaatal lool gis ku ci gàttal lool koo xam ne dafay guddal muqaddima bi kama huwa alxaalu fi maraqi suud wa jamci aljawaamic balaa muy dugg ci al aslul awal waaye it danga gis koo xam ni dafay gàttal muqaddima bi lool loola rek moo leen wuutale waaye muqaddimay kitaab muqaddimay fan lu bare bare bari duy wuute min kitaabin ila kitaabin axar dars yi ñaari dars yi passé nag ñu ca ne laaloon nañu ci aslëf ci muqaddimay usulul fiq yi nga xam ni borom téere bi da koo saxal jiitale ko téereem bii comme ni ko borom xam-xami usul yépp di defee tey nag ñu war a dal ci abyaat yi nga xam ni day mottali yee paase mooy gannaaw ba mu la xamalee li nga xam ni mooy aqsaam alxukum at taklifi ni mooy waajib ak alxaraam ak almandub ak al makruh ak al mubah ci bir mustalahat yoya ci la nekkat ba tey ci indi ay baat yo xamni kalimat la wala alfaz mutaradifa li ba'd al alfaz allati dhakaraha lak min qabl lola la rek li ëpp ci darsub tay bi ca lola la jëm donte dinañu la la laalaale it geneen pàcc beneen pàcc bi di pàccub الحكم الوضعي كون موتاخ كوم ني نكو باخي دي داف لو جانغ بايتي مي داك لي نتي جوبلو تي جانغ مي رك موي بور نين خام ني ني واخي نخ واي بوكول اك وسار وسار مان غا لي جنتي با ген واي واي موم دا فا ام انام غون كو تريلي سيرتو تيري بي غا خام ني دا فا ام تي ين ابياتي اي تعقيدات يو Eh, motax ñu jang ko awalan ngeen degg ko bu ko defé ñu doga dal ci نينا قال الناظم رحمه الله تعالى فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبه أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيد والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء أواخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح أه، ايه نوي bayit yi nga xam ni incha allah ci la ñuy taxaw ci sunu dar sub tey bii ci la ñuy taxaw tey jii incha allah mu naavim bi nee na eh, fadilatun والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع تخب la mu ca jublu mooy fadilatun nee na buñ la waxee ci fiq ne la lii day fadila la wan nat bu ak ñu ne la lii day manduub la walla distuhib ak ni lii kat dañ koo sopp nee mustalaxaat yooyu luñ la ci wax rekk nga xam ni benn baat bi la menn maanaami lañ ci jublu kon alfadilatu wan nadbu wal mustahab nee na yooya yépp taraa dafa ay baat la yoo xam ni dafa toggoo mooy ay baat la yu wuute waaye menn maanaami lay wone loolu mooy taraa dafa dafa toggoo mooy ay baat yu wuute la waaye seeni maana benn la euh, mutaraadif nag incha allah ci duruus yi di ñëw danañu xam lépp loo xam ni yataallaqu bit taraadufi wa bil euh, euh, mutaraadifaat danañ ci ñëw ci kanam incha allah nee na kon baat yii ay baat la yoo xam ni ñoo bokk menn maana moo xam ni moom lay wane moom lay jàngale moom lay joxoñ te lañ ca jublu it mooy baat mooy loo xam ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da koo def da koo mas a def benn yoon wala def ko ñaari yoon wala mu ëpp ko waaye saxu ca te fekk jëf ja it doonut waajib jëf ja baa ngi ci waaye bàyyi ko it mbugal nekku ca ak yet daa nekku ca loolu la jublu ci baat yooyu mooy alfadilatu wan bu wal mustahab yonent bi def na ko benn yoon wala ñaar yoon wala ñetti yoon waaye daal saxu ca saxu ca e, saxalu ko dàkk kon yooya mooy maanaa fadila wal man alfadilatu wal mandubu wal mustahab nee na summa tatawwo nee na ba ca topp nag mooy at tatawwo tatawwo في اصطلاح المالكية فووتك يه فكن يه ملنجك وخلنك دي فضيلاك المندوب أك المستحب اصطلاح مالكية جمهور العلماء في مذاهب بأن لك وتوني وينك كي جس جس مذهب مالك ووتنا نيوك مذاهب يتدس سيينا خمني مومو تطب لملني التطور moo tax mu ne la summa tatawoo topp ca nag lañu naan ak tatawoo mooy jëf joo xam ni untu xit tànnees na ko loo xam ni nit ki moo koy tànnal boppam ci ay awraat ci ay azkar te buñ nee la alwird jubluwuñ ci wirdu zikar kese jullit naa fi la goo xam ne danga ko saxalal sa bopp di ko def saa su ne wird lay tudd danañ ko tudde wird danañ ko tudde xisb kon lépp loo xam ne nit ki mi ngi koy def te fekk moo ko tànnal boppam ci ay awraat ay adkaar ay nawaafil yaa xam woor la yaa xam ci wàllu sarax la yaa xam ci wàllu julli la te fekk du loo xam ni sharia moo ko ko taxdiidal ne la ne ko nii lañ koy defee wala lim bii lañ koy defee wala waxtu wi lañ koy defee yooyu yëpp dafay dafay dugg ci tatawoo dafay dugg ci tatawo inda al malikiya bu de tatawo na inda al akharin mook mandub ak fadila ak mustahab bi yëpp benn la day duggal ci yene waye malikiya yi ak tatawo indahum ma yantaxibuhu al insaanu li nafsihi min al awraat looloo tax imam Mazari wax ne la ci نلا التطوع مأخوذ من الطوع نينا طوع موي تشوبارو دنجكو جيلي تي طوع موي ني لو خامني داغا تشا تشوبارو تي سا تشوبارو غا كو ديفي انام غان كوي ديفي تي سا تشوبارو لا وقت وان كوي ديفي تي سا تشوبارو لا كوم جولي فجر شريعه داكو ووتال وقت ووتال كوب اب nga ne xër nga ba xër Euh, ñaari ràkka yaa nga war a def fajar nga def ko juróom benn ndax baax na baaxul baaxul wala nga xër jóg ci waxtu ne fajar gi de tey dama bëgg julli suba ba pare doog cee teg fajar gi loola baax na wala baaxul baaxul ndax sharia da ko wutal waxtu te waxtu wa mooy gannaaw bu fajar ga feqee lu jiitu ngay julli suba nga koy julli boo ko taaxiiree ani subhi baaxul bo dolle rakaya ya kon lola du tuddu tatawu indal malikiyya waye tatawu yow ya tok rek sawar nga eh, amana sax da nga bëgg nelaw mënu lo nelaw xawa xawa sahar jékki-jékki jog japp julli la soppi rakka lola tatawu la kon lola mo wutale tatawu ak ye nga xamni ak taqsimat yoy nga xamni mom la malikiyya yi taqsim moo tax mu ne summa tatawoo la ca topp mooy tatawoo te tatawoo mooy loo xam ni untu xib nit ki moo koy tànnal boppam nit ki moo koy tànnal boppam bu fekkee ni nag raxiba la mu ne raxibatun ma fihi raxaban nabi bi zikri ma fihi min al ajri jubi aw daama filuhu bi wasfi nafi foofu la wax ji daanoo mu ne raxiiba moom mooy loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cee tarxiib dala caa xirtal dala caa xirtal raxiibatun maa fiihi raxaba nabi yaani raxabaka nabiyu fiihi nan la la ci tarxiibale nan la la ci xirtale bi zikri ma fiihi min al ajri ngir wax na ni ku def lii yàlla fay la lii ku def lii yàlla fay la lii kon raxiba mooy loo xam ni yonent bi dala ca xirtal nan la la ca xirtale xirtal ci ñaari anam imma mu ne la ku def nangam yàlla fay ko nangam loola tarxiib la ci tuddal la yool wa ca nekk ñaareel bi aw daama fi'luhu bi wasfi nafli wala mu sax ci jëf ko waaye te fekk na du farata ndax farata it daama ala fi'lihi yonent bi dafa masa sax di julli farata yi waaye gen geneen julli goo xam ni yonent bi dafa saxoon di ko def te te doo te duut farata loola it danañ ko tuddee moom la ñuy tuddee raxiba raxiba nag indal malikiya comme ni ko nafraawi waxee benn julli rek mooy raxiba indahum ala al mashhur as sahih te mooy julli fajar julli fajar kese moy raghiba motax ñukoy tuddé raghibatul tuddee raxiibatul fajri moo tax ñu koy fajri kon julli fajar rek moy raghiba in fi mashhuri inda almalikiya la tax mu doon raxiiba mooy ni yonent bi daf ci tudd yool ci ku ko def waaye it da ca sax te du farata la ko sunna dana ñëw ci kanam waaye mooy rek ni sunna da ko daa def ci mbooloo sunna da ko daa siiwal ci mbooloo waaye raxiba lu bari mooy julli fajar googu daawu ko def ci mbooloo lu dul ni dafa nekk ci yoonu tukki yonent bi daawul julli rakkaatayil fajri fil masjid waaye comme néegam dafa dafa nekkoon buntu néegam dafa nekk ci jàkka ji da daa julli ñaari rakk néegam dugg ci jàkk bi bu duggee rek kii li xaam gis ko mu dugg si rek mu li xaam bu ko defee mu julli fajar mu julli julli suba waaye raxiba daawu ko def ci mbooloo mooy julli fajar loola moo ko wuutaleeg fil xaalib li nga xam ni mooy sunna comme ni ñu koy ni muy ñëwee léegi ci kanam kon ngeen xam ni raxibatun bu dee raxiba inda jumhuril malikiya وعلى المشهور في المذهب المالكي رغيبا موي لو خامني يوننت بي داتيه خيرتال داتيه نياخي نكا لا تي نياخي تي واخني كوكو داف يالا فاي لا نانغام نياريل بي ولا مسختي امام نياختي ولا مسختي تا لامو تي جوبلو دو فاراتا du sax gi nga xam ne da koo saxe ci farata sax ca ci wasfun nafli naafi la daal goo xam ni da caa sax musu koo bàyyi te daawu ko def ci biir mbooloo kon loola mooy ar raxiba kon raxiba mooy loolu ala ma qaalahu jumhurul malikiya wa huwa al mashhuru kadalika inda al malikiya kon wàllu raxiba ba tey nafraaw yi ci fawaakihu dawaani daf ci wax wax ju am solo ci différence bi nekk ci diggante naafila ak raxiba nee na raxiba daawama alayha annabiyu sallallahu alayhi wa sallama wa xaddaha bi xilaafi naafila yonent bi daf caa sax limité ko it nag mooy ni fajar ñaata ràkk nga ci sañ julli ñaari ràkk kon yonent bi sax na ci musu koo bàyyi waaye it da koo limité it ci ñaari ràkk mu ne fa innaha ma faalahu sallallahu alayhi wa wal fa innaha yaani an naafila bu dee naafila nag maa faalahu annabi sallallahu alayhi wa sallam walam yu daawim alayhi loo xam ne yonent mas na ko def benn wala ñaari yoon wala ñett waaye saxalu ko dàq wala mu doon loo xam ni daawama alayhi walam yaxuddahu sax na ca waaye wutalu ko limite lu demee ni julli gi nga xam ne moom la daan julli lay guddi lay guddi yenn saay daan na julli juróom-ñetti ràkka tekki safa ak yenn saay mu yées ko yenn saay mu julli fukki ràkka utalu ko woon àpp boo xam ne daawu ko weesu ci da doon aju rekk ci ak nasaatam ak cawarteem ak cawarteem te bu daa tukki bu nekkan ci yoonu tukki lu bari daawut def nawaafil yooyu kon naafila wutalu ko limite waaye raxiba da ko wutal limite naafila wutalu ko limite waaye raxiba da ko wutal limite wala yenn saay yonent bi aw xaddahu walam yudhirhu fi jamaa wala yonent bi wutal ko limite waaye daawu ko defe ci mbooloo comme julli fajar googu nga xam yonent bi utal na ko xadd waaye daawu ko def ci mbooloo kon loolu ay furuq la yoo xam ni dafa ñëw ci bayna arraxibati wa mujarradu nafila buñ la nee nag utal ko xadd mooy wutal ko nangami ràkk nii lañu koy defe loolu lañ jublu ci yonent bi wutal ko limite nafraawee wax loolu jële ko ci al ajhur yi kon loola mooy différence su farq bi nekk ci bayna raxibati wa bayna an naafila mu ne léegi comme naafila bokkul ak raxiba léegi lan mooy naafila moo mu ne wan nafla min tilkal quyuudi axli nee nafila mom moom yamu ya mu xayd ya nga xam ni tënk ya nga xam ni noona la tënke raxiba rocci ko ci na ci ci julli ci ci ci naafila mooy naafila doonut loo bi sax saxut woon ci def ko waaye it ñaaxewul ci tudd la ca nekk ci yool te wutalu ko ay xadd ci ay rakaatam moo tax mu ne wan naf la naafila axli na ko wéetal min tilkal quyudi ci xaydi yooyu ba pare wéetal ko it wal amri wéetal ko it ci ndigle ko diglewu ko bi bi bi aynihi bal aalama bi thawaabi fihi nabiyu rushdi wa sawaabi dafa xam rek ni ku julli rek yàlla fay la جملة بدون أن يحد نوعية الثواب الذي لي آه، فاعلها وخدني كجلي جلي يالا فايلا نانغام واي خملني دال كوكو داف يالا فايلا فاي غو مطلق لا لم يحد نوعية الثواب موتا مون ونفل نافل نافله موم اخلي ويتل من تلك القيود تي قيد يويو مولا واخون تي رخيبه موي ذكر فيه الأجر بعينه حدد الأجر الذي فيه أكيد لم يدوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بوصف النفل kon ñaar yooyu na nga ko ci ixlaa min an nafli ba pare nag wal amri nga ixlaa ko it ci amru al amru bihi bi aynihi ak digle ko moom ci jëmmi boppam bal aalama bi sawaabi yàlla da yonent bi dafa xamle rek ne yoola ngi ci waaye lan mooy ñaataa ci nekk ci yool lan mooy nawiyatu sawaab ga ca nekk lan mooy kammiyatu sawaab ga ca nekk lam yu yubayinhu bal alam bi sawaabi fihi nabiyu rushdi wa sawaabi kon naafi la budda nga mooy julli wala mooy xeetu jaamu yàlla goo xam ne du farata dafa aju ci coobare waaye nag eh, lam yu yuraxab fii fi fiilihi ci wax ni nangam a ngi ci ci yool kadalika lam yu daawam alayhi kenn saxalu ko yonent bi saxalu ko it dàkk te nag kenn diglewu ko it bi aynihi waaye yonent bi rek dafa wax ni rek yool a ngi ci yonent bi dafa wax rek yool a ngi ci te taxdiidul yool googa ñaata la wala gan façon yi yool ca nekk kon loolu mooy mujarradu naafila nabiyu rusdi wa sawaab moom mi yonentub njub di euh, jubal euh, mu ne ba tey ba mu joge ci rahiba wax la it farqa ba nek ci digganteem ak naafila dafa taxu ci benen masala ta moy wa sunnatun ma ahmadun qad wa zaba alayhi wa dhuhur fihi wajaba nee na bu sunna mom ma moy jëf jo xamni ahmadu yonent bi qad wa zaba saxna alayhi ta jëf ja mooy sunna moy lo xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sax na ca jëfe ko saxal na ko dàkk waaye wa zuhuru fii wajaba te nag daan na ko defit ci biir mbooloo daan na ko fésal jëfe ko defe ko ci biir mbooloo moo tax mu ne wa zuhuru nee na pour nga xam xaydu sunna dëgg dëgg dëgg mooy yonent bi sax ca waaye nag taarif bi du mën a mat mukk lu dut ni dañu caa boole al izhaaru fi jamaa mooy dolli ci xaydub izhaar fi jamaa wajaba war na pour nga mën a dégg xayd bi pour nga mën a dégg taarif bi wajaba gi delluwut ci sunna waaye dafa ne pour nga mën a dégg taarif bi xamal ni mooy loo xam ne yonent bi da caa sax ba pare yonent bi da caa sax waaye nag war na it nga dolli ci ci taarif bi war na ci yow mi ko bëgg a xam nga xam ni ورنا ندل في تعريف ب الإظهار في جماعة وين والظهور يعني والإظهار في جماعة وجب بأن يدرج من ضمن تعريف السنة ودين ينقل كده لول موي معنى وجب والظهور فيه وجب كون سنة بن لاكو مطلقا في اللغة كما هو معلوم موي الطريقة سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا سنة الله في الذين خلوا من قبل من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها قم برم معلقة بوحي سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها غير غنى خيطون أمنا نيو يون ويد أمنا نجي أمنا نجي السنة موي الطريقة moy aw yoon yaa xam wu baax la wala lu bon la wu bon la man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan ak man sanna fi lislaami sunnatan waaw kon sunna qad takunu sunnata xayrin wa qad takunu sunnata charrin yoon wu baax wala yoon wu bon turu sunna nag ak njubam njub mooy aslu bi yoon woo xam ni yoon wu jaaru la yoon wu ñu mën a jaar la woo xam ni mën nga caa jaar te benn pakkatal du la fa fekk loola mooy aslu euh, kalimatu sunna euh, ci luxa kon wépp yoon woo xam ni xàll nañ ko ñu war caa jaar yoon woowa dees na ko tudde sunna ala hada al asaas comme yoon wu ñu xàll ñu war ca jaar mooy sunna ndax farata yi duñu duñu du duñu sunna kon farata yi sunna lañu ndax yoon wu ñu xàll la yi yàlla farataal yépp ay sunna lañu على مقتضى اللغة ندخ يون ونيو خال لا سن بروم كو خال يونت بي خال كو بور نيو وار تي جار كون الاصل تي سنة موي يون وو خامني دنج كو خال بور نيو جار تي يون يونت بي صلى الله عليه وسلم ويغا خامني مام لا كو سونو بروم خالال بور مو جار تي كون لول مو يار سو في سنة موتاخ nga gis ni ku ci nek ci borom اصحاب العلوم dañu am istilah go xamni mom lañu nam ci buñ la né sunna boo demee ci ñi nga xam ne borom xam-xam yi aqida ñi bind ci aqida buñ la nee sunna mooy jaar-jaari yonent bi yaa xam pas-pas la yaa xam ci fiq la yaa xam ci suluk la yaa xam ci farata la yaa xam ci li ñu tudde sunna la lépp loo xam ni yoon la woon yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inda ulama yi usuli diin yutliquuna alayha as sunna boo demee ci usul yu ni ñoom it am nañu lu ñuy lu ñuy itlaaqe sunna boo demee ci fuqaha yi am na lu ñuy itlaaqe sunna boo demee ci ulamaawul xadis am na loo xam ne yutliquuna alayha sunna kon yooyu yëpp bul jaxase istilaahaat yooyu buñ la nee sunna xoolal caf xam-xam wa nga xam ni foofa lañ fa waxe sunna nga xam ni sunna fii kat inda haulaay lii lay tekki lii lay tekki ku ci nekk am na luy sunna di tekki ci yow euh, waaye bu dul loolu aslu baat bi ci boppam ci sharia mooy lépp loo xam ni yoonu yonente bi la sallallahu alayhi wa yi في istilahihim wa tasmiyatihim la ñuy itlaaq sunna mooy loo xam ni sharia daa woote jëme ca te forcé wu ca sharia dalaa woo jëm ca te for def kow yoon woo xam ni sàkku na ci yow nga jaar ca te forcé wu la ca ndax bu la ci forcé rek mu doon mu doon farata mu doon farata kon as sunna inda al inda al jumhur moom kalima muraadifa lii lil manduubi wa lii المستحب ولغيرها واي عند المالكية خاصة سنة موي لو خمني واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة موي لو خمني يننتبي صلى الله عليه وسلم دكو دكي سخدك musuko bayyi digle ko yit ndig ndigal ludut wareef ndigal lo xamni du farata da ko digle te jublu ci ilzam ci kenn ba pare nag daa ko def ci mbooloo fa ala sabilil misaal julli iidayni lam yatrukha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam digle na ko waaye ndigal la du du du farata ba pare daka daa def ak mbooloo lu mel ni istisqa ak xeet yooya yëpp sunna la yoo xam ni bi sallallahu alayhi wa sallam sax ca daan ko digle te jubluwu ca farata te daa ko def ak mbooloo kon loolu mooy sunna inda al malikiya moo tax mu ne wa zuhuru fihi wajaba il faut ñu def xayri ndax bu dul lool rek day niroog arraxiba wala mu niroog mandu digle na ko te du farata sax ca day niroog raxiba foofu waaye ba mu ne wa azharahu fi jamaa di ko fesal ci mbooloo loola mooy li ko teqale digganteem ak raxiba ndax waxoon nañu ni raxiba daawu ko def ci mbooloo te waxoon nañu it indal malikiya benn raxiba rek moo am mooy mooy salaatul fajri mooy salaatul fajri mu ne ba tey wa baaduhum lenn ci boroom xam-xam yi samma alladi qad ukkida minha bi waajibin fa xuz ma quyida nee na am na ci boroom xam-xam ñi ñoo xam ni sunna soo xam ni dañ koo taakid dañ koo feddale daan dañ koo feddali daan nañ ko tuddee sunna waajiba wa baaduhum lenn ci boroom xam-xam yi sama aada woon na aada woo woon na daan tuddee alladi la nga xam ni xat ukkidaa feddalees na ko minha ca sunna ya am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ni seen aada mooy tudde sunna gu ñu féddale bi waajibin ne lii kat sunna waajiba la nee na fa xuus na nga jàpp maa quyidaa lii ñu la tënkal ba mu bañ a jaxasoog yow ba mu ba bañ a jaxasoo nee nañu nag ka mu jublu ci borom xam-xam yooyu mooy ibnu abi zayd alxayrawaan yi ndax bari na li mu koy wax ci risaala boo demee ci risaala danga fa fekk fukki barab ak ñaar yoo xam ni gucca ne daf lay wax ni li kat sunna wajiba la bok na ca ba mu ne wal jam'u bi arafata bayna adh-dhuhri wal asri inda az-zawali sunnatun wajibatun bi adaanin wa iqama amna fenen ñaarel bi mi ngi wax ni wa salatul 'eidayn sunnatun wajiba ñettel bi waxat na fenen ne wa salaatul xusuufi sunnatun wajiba wax na it wa zakaatul fitri sunnatun wal udhiyatu sunnatun wajiba وخدنتي والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريدة وما زاد عليها سنة واجبة وختنني والوتر سنة واجبة وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وختنني والصلاة على على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة وخادني وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة وخادنا فنن وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة ما يبما وخادنا وخادنا فنن ورمي الجمار سنة واجبة وكذلك الحلاق سنة واجبة وخادنا فنن وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة سنة رجلهم والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب كيف نجد فرانسي يبمو اندلي بي موصفك سنة واجبة لا تمو يتقبل الركن أم الغسل للإحرام موصفك سنة ركلة لغا خمني موي الغسل لدخول مكة موصفك مستحب لا كون التفرق بين هذه xawlun qadimun wa mawruthun lada almalikiya kon moo tax moom la la wa baaduhum nee nañu kamu ca jublu foofa mooy ibnu abi zeyd alxayrawaani fi risalatihi moo tax mu ne wa baaduhum lenn ci borom xam-xamu malikiya yi samma tudde na alladi la nga xam ni qad ukkidaa feddalees na ko min ha ci sunna yi bi waajibin ci tudde ko ne sunna waajiba la nee na fa xuz ma quyida lii ñu la tënkal fii booya boo nga jàpp ko mu bañ a mu bañ laa mu bañ a réer mu bañ a réer kon nga bañ a jàpp ni fële ñu ne la sunnatun waajiba nga jàpp ni loola farata la te fekk rek sunna mu akkada lañ ci jublu moo tax mu ne la na nga ko ràññee balaa ngay jaxase farata ak sunna balaa ngay jaxase farata ak sunna moo tax abul walid al baaji di wax ci al ihkaamul fusul mu ne qad abbara baadu ashaabina an muakkadi sunani bil waajib wa hada tajawuzun fi l ibaara wa laysa bi xaqiqa nee na lu bari ci ashaabul ma ashaabul imam malik daan nañu tabir bu ñu bëggee wax sunna ju ñu feddali nañu ko daa waxe mooy sunna waajiba yani sunna mu akkada nee na loolu nag tajawuz mooy woyofal waxin la rek la mu ci jublu tajawuzun fi ibara waxin la rek jublu wuñu ci ne xaqiqa wujub moo nekk ca loola nee na waxin la rek ngir wane ni lii kat lu ñu feddali la wuuteeg sunna sa la ñu feddaliwul nee na loola rek lañ ci jublu nee na loolu rek lañ ci jublu boo demee nag ci euh, yenn boroom xam-xam yi ñoom am na benn lënt-lënt bu ñu posé fii euh, wala sax boo demee ci boroom xam-xamu maalikiya yi wala lenn ci xanaabila yi taabir boobu dinañ koy def même xanaabila yi am nañu taabir bu mel noonu indahum euh, amaana fa ñu ko jëlee mooy xadis ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xuslul jumuati waajibun على كل محتلم غسل الجمعة سانغو الجمعة واجب لا تي كيب كوي مكلف محتلم موي كوي مكلف جوبلو وتي كو احتلام تيغا بو نلاوي با احتلام جوك جولي جي الجمعة ناخ دغنا كو كاي فيري نونو تا جوبلو وون سي لول bu boba day doon waajib ndax boo gentee mom waxuma la sax juma waaye boo jógee mom balaa ngay julli farata la nga nga sangu waaw waaye muxtalim yani mukallaf képp koo xam ni mu kallaf la sangu bisu àjjuma dafa war ci yow lii yonent bee ko wax ndax kon bisu àjjuma mu kallaf bu sanguwut yuaaqab hmm? laa yuaaqab ndax mu kallaf bu sanguwut dem jàpp rek dem julli ji jumaa ndax sa julli jumaa wér aha kay werna. na ndax xadis beneen a ñëw yonent bi salaa sallam di wax ni man jumuati فالxuslu afdal wa man tawaddaa fa biha wa nicman kon loolu day wane ni xuslul jumua waajibun gële mu wax laysa ala zahirihi wa innama huwa yaani sunnatun muakkada kon boroom xam-xam yii ku mel ni ibnu abi zayd nga xam ni kaana yutliqu ala sunnati almuakkada bi annaha sunnatun waajiba amaana moom ak ñi mel ni moom min alxanaabila maaxaduhum fi hada altaabir هو هذا الحديث طبعا آه، كن لولا موي آه، ليغا خامني موي معنى بيت بي آه، بو ديمي تامي سي تاتاي تاتاي سي تيرم بيغا خامني موي تحرير المقاله تحرير المقاله في شرح الرساله موغا فاي توخالي سي موسى بن علي الزناطي من آه، كبار علماء المالكية مونغي توخالا تي موم مو آه، المندوب له القاب مندوب ومسنون ونسل ومستحب ومرغب فيه وفضيلة وتطوع كون لي لزناتي وخ أولا مونه كون لوني سوب دا اي القاب دا اي تور يو تمويت مندوب مسنون نفل مستحب مرغب فيه فضيلة التطوع كون دا فملني دا فكي جمهور العلماء تا نيو نيو نيو نانيو تعريف يويا مو دلو وقتي واختلاف الفاظه يرجع الى قوه تأكيد بعضها على بعض نينا بعد يي ووتي غا نيك سي بات يي lu tax fii ñu naan ko mandu fee ñu naan ko masnun fële ñu ne ko nafl feneen ñu naan ko mustahab fii ñu ne ko muraxabun fiihi wala fadila wala wala wala tatawa nee na loolu dafay dellu ci nañu gën a feddali konte te nañ nañu nañu gën a dëgërantee taña ca na ñaaxe ca gën a gën a gën a feddalikoo moo tax mu ne fa sunnatu fawqa raxiba zannaat yi mooy wax ba tey mu ne sunna moo gën a kawe raxiba nee na wa raxibatu fawqa al mandub رغيبة موغ نكاوة مندوب والمندوب فوق النافلة نافلة مندوبة نكاوة نافلة والنافلة فوق الفضيلة نافلة يت نكاوة فضيلة والفضيلة فوق التطوع فضيلة يت موغ نكاوة تطوع وذلك كله على حسب كثرة الثواب وقلته seenu gëna kawente yépp day aju ca na ca aw yool am aw yool gëna bareek na kon loola it yépp تدور حول آراء المالكية وأقوالهم في هذه المسائل أو في هذه الألقاب kon lii mooy li aju ci bayit booba mu dellu waxati dugg ci yeneeni masala gannaaw ba mu la taarifalee yooya muy foofa la jeexale ci taarif ahkaam yooya di al waajibu wal manduubu wal xaraamu wal makruuhu wal mubaax pare na ci dellu nag di la indilaatal ay atte yoo xam ni tataallaqu bi hadihi al alqaab fa ala sabili almisal nee na la wan naflu laysa bilshuruci yajibu fi gayri ma nadamahu muqarribu nee na naafila moom soobu ca du tax mu war la wan naflu nee na naafila laysa yajibu duut luy war bishuruci ci sababuk ni da nga caa soobu kon naafila boo ca sooboo du tax mu war la ala sabilil misaal ngay jàngal quraan yéene ne dama bëgg a jàng suratul baqara wala dama bëgg a jàng sama ab jukki tey mu doon ñaari juzu wala ñetti juzu wala lu ko ëpp soobu ca ndax day war ci yow nga yeggali ko mu ne laa yajib nga ne xaaral ma zikrullahi tasbix tahmid tahlil takbir alf marra nga tambali ko dem ba ci biir nga dagg ko ndax tambali gan ko tambali gannaaw ba nga ko yéenee ndax dafay war ci yow du war ci yow allahuma lu bu fekkee ni da nisar bu fekkee ni la nag bu boobaa dafay war ci yow ndax naflu googu day ëlbatiku doon farata ci yow kon nafila soobu ca du tax mu war ci yow soobu ci njàng alquran fas yéene sa jukki du tax mu war soobu ci zikkar du tax lim ba nga yéene woon mu war ci yow nga yeggali ko ne damay zikkar diggante tàkkusaan ba timis soobu ca bu la neexee dagg ko du war ci yow kon wan naflu laysa bi shuruuci yajibu loola mooy madhabu al imam eh, malik lu dut yi nga xam ni nag dinañu ñëw ci kanam ñu istisnaa ko inda al malikiya kon naafila saa su la neexee man nga ko dagg bu la neexee it yeggale ko lan moo tax ndax mandubu yajuusu tarkuhu wa tarku itmamihi al almubtilu lima fuila minhu tarkun lahu yena bu la neexee bañ koo def kon soobu ca dagg ko it wàññiwu la dara ndax amoon nga sañ-sañu bañ koo def soobu gën ca soobu it du tax mu war ci yow hada huwa qawlu jumhur bu fekkee ni ñoom nee nañu naafila boo ca sóoboo farata la ci yow nga mottali ko ak xeetu naafila gu mu mën a doon sóobu ca rekk dafay tax mu war la ba doo ko sañ a daggati doo ca doo sañ a jóge ñu tegtaloo ci li sunu boroom wax wala tubtilu amalakum yaa ayyuha alladina amanu lu mu ca wax ittaqullaha hmm? اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وي لين تنديغل يالا وي تنديغل يونتي بي تبولين ياق سين جيف نيوم نينا لولو موي سين تكتال واي جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابله ني تونتو لين تشيني لا يالا نام ايه بي بمي وحني ولا تبطلوا اعمالكم لامو تي نام موي ابطالها بالشرك المحبط للعمل nga yàqe sa jëf shirk ndax shirk jëf na joo xam ni boo ko defee wala qad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika layn ashrakta la yaxbatanna amaluka boo bokkaalee la nga jëfoon mu jiitu lu jiitu bokkaale ba bokkaale gii dana ko dana ko yàq dana ko toj ba doo fa fekkati dara wa xadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura doo fa fekk dara kon wala tubtilu amalakum yani bi shirki al muxbiti lil amal جمهور العلماء نينا nañu te loolu nag noonu la ko almufassiruna yi noonu lañ ني ولا تبتلوا اعمالكم بالرياء والعجب wala ياق amalakum جيف wal نغيستال bu ولا نين ييم سين بوب ngistal جيف wala ngeen yéem seen bopp ca jëf ja ñaar day yàq jëf niki man wal ada di yàq jëf la tubtilu amalakum bil manni wal ada ñom loola moy sen sen tegtal كون جمهور العلماء ومنهم الشافعيه نيوم نينا نيو النفل لا يجب بالشروع فيه كوتي نك نك ام لوتا استثناء بو فكني مذهب الشافعيه نيوم نينا نيو لا يلزم بالشروع مطلقا فمن شرع في نفل صلاه او صيام فله القطع نينا نيو نافله دوار تا غناو باغا تا صوبو بو صوبو تي نافله warul مطلقا nga wéy képp ku soobu ci julli mu doon jullit naafila wala nga sóobu ci woor mu doon wooruk naafila sañ nga koo dagg saasu la neexee ñu solo ci xadis bu yent bi di waxe ne assaimul mutatawiu amiru nafsihi kuy woor woorkat buy coobarewu mooy gidub boppam inshaa saama wa inshaa aftar bu ko neexee mu wéy ca koor ga bu ko neexee mu dagg ko eh, xadis la boo xam Tirmisi moo ko solo ak xaakim Eh, ñoom loola mooy seen tegtal woor la wax ñoom it ñu xiyaas ca la nga xam ni mooy julli kon loola lañu foofa lañ sukkandikoo ne eh, naafila gu mu mën a doon dagg ko sañ nga ko waaye nag jumhur shafia it istisna nañu ci naafila ga nga saña dagg mooy xajub naafila ak omray naafila bu fekkee ni xaj eh, soobu nga ca te fekk xajoon nga bu njëkk ndax xaj benn yoon la lay war ci sa dund bu fekkoon ni ajoon nga nga dem di aj ajug naafila boo ca sooboo war na nga mottali ko umra it nga umra woon bu jëkk bëgg a umrawaat marra uxra umra googu it boo ca xasee soobu sañatoo koo dagg bi dalili qawlihi taala wa atimul hajja wal umrata lillah kon ku ca soobu sañoo kaa dagg wa bi dalili ni haj moom ak umra jëfin ga ci kuy naafi la ak jëfin ca ci kuy farataw benn la amul différence bu dee julli loo julli naafi la tisbaar tisbaar moom farata rek lay doon naafi la tàkkusaan amul tàkkusaan moom farata rek la yeneen ya ca aju nag yooyu ay naafi lañ waaye du ni tàkkusaana ko moom waaye um te ni ngay jullee tisbaar ak na ngay jullee tàkkusaan ci yéene ga ci jëfin ga wuute naag donte da nga doon julli ña yeneen ñeenti rakka te fekk jubluwulu te du te du tisbaar ak tàkkusaan te du tisbaar tàkkusaan kon bu dee julli wala woor wala yeneen jëf yi seeni farata ak seeni naafila am na am na différence waaye bu dee xaj ak umra farat seeni farata ak seeni naafila jëfin gi benn la yéene yin gi benn gi benn la ndax boo yéene xaj daa wax ni damay yéene xajub naafila da nga ko yéene rek lépp rek benn la jëfin bi moo tax boo ca duggee sañatoo ko sañatoo ko dagg moo tax imaam Shafii ñaar yooyu la istisna ci nga xam ni boo ca duggee donte naafila sañoo naafila la sañoo ko dagg waaye bu dee maalikiyé yi ñoom istisna nañu ziyaadatan ala Shafii xamsata umur شافعي نار لا استثناء نيوم نيو استثناء جروم تك كو سي نار يموي جروم نار موتاخ مو والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب مقرب جو كمو تي جوبلو موي محمد ابن محمد ابن محمد الحطاب الرعيني بروم مواهب الجليل في شرح مختصر خليل موم لا جوبلو سي مقرب يعني الذي يقرب لك المسائل ويقرب لك القواعد ki lay teunkal masala yi teunkal la xawaayit ta moy mooy xattaab ruayni moom la ñu mom la djublu ci muqarrib koga hatta wax na ci terem bobu di mawahibul jalil mune la qif wastami masailan qad hakamu bi annaha bilibtidaai talzamu salaatuna wa sawmuna wa xajjuna wa umratun lana kada tawaafuna maa timaamil muqtadi fa yalzamu alqada bi qatci aamili nee na taxawal déglu ma tënkal la ay masa ay masala yoo xam ni boroom xam-xamu maalikiya yi atte nañu ci ni képp ku ca sóobu ku ko tàmbale war na la nga yeggali ko war na la nga yeggali ko boo ko daggee nag li udrin fay waru la waaye boo ko daggee bi duuni muujibin wa taamudan wa amdan بوبا فاي ورنا لا كون لين ني بالشروعيه يجب يعني لا يجوز لك ان تقطعها عمدا اما اذا قطعتها لعذر فالامر واسع بالنسبه لك موتاخ مون بي انها تلزم بالابتداء يعني بالشروع فيه تيويا موي صلاتنا مالكي دنجي ويت كي اعتبار من قطع صلاه نفل دخل فيها يجب من قطع عمدا يجب عليه ان يقضيها wa sawmunaa ak suñu woor wéet nañ ca wa xajjunaa wa wa xajjunaa wa umratun lana ñoo shafii yi ñoo bokk ictibaar ñaar yooyu kada itikaafu na ak itikaaf boo yéenee ni fukki fan laay def dagg ko gannaaw ba nga amee juróom-ñetti fan danga fay ñaar ya ca des hada huwa qawlul maliki tawaafit boo ca sóoboo xam ni juróom-ñaar la war a doon nga def ñett sonn dagg ko bi duuni udr bu boobaa it ñëw mottali ko da ko fay Eh, maa ihtimaamil muqtadi ak yow mi nga xam ne dangay roy ci imaam topp ci gannaaw imaam muy julli nga dagg ko da nga ko fay waaye fay ga nag ca fay julli ga la yem waaye fay roy ga amoo ca xattan amoo ca sañ-sañ ndax doone imaam ñëwal jiitewaat ma ma julli hmm? doone imaam ñëwal jiitewaat ma ma julli kon danga dagg da nga fay julli ga waaye nag fay eh, itimaam nga moom munoo koo fay ndax doo forcer imaam ngir mu jiite si waat la moo tax mu ne tawaafu naa ak suñu tawaaf maa itimaami almuqtadi ak kuy roy cib imaam dagg ko danga fay julli ga doonte nag roy ga moom mënatuloo ko fay moo tax mu ne fa yalzamul qada dana taqoo ak fay dana war bi qat'i aamidi ci képp ku ko dagg ci tayeef ku ko dagg ci tayeef dang ko fay kon yii ñooy yi nga xam ni malik yi dañ ko istisna mu doon juróom-ñaari mbir shaafi'i yi istisna ñoom ñaar bokk koog maalikee yi maalikee yi dolli ci juróom am na ci benn boo xam ni nag boo demee zarkashi wax na ko ci tashniful masami fi sharxi jamci aljawaami wax na ko fa nga dem ci xululu alqarawi alyazlatini moom wax na ko it ci abdiyaau llaami fi sharxi jamci aljawaami naqlan عن الزركشي ولم الغيث الهامع bu abi zuraat al iraqi ci charxul jamil jawaami moom it wax na ko euh, ci ni euh, shafiiya yi dolli nañu beneen mooy tabaski xarum tabaski boo tëralee sam xar yéene ko ba tëral ko tàmbale ren di boo daggee dangay mu sañoo ko dagg la budda nga continuer ci donte tabaski du farata waaye xar moo xas a tëral pour rendi ko farata la ci yow nga continuer nga continuer rendi nga sañoo ko échanger ak beneen xar bii nga yéene tëral nga ko ba dawal paaka bi donte daa cof tuuti cof goo xam ni du tax xar ma dee nga gis nga nga ne ah téemaa bàyyi rey bale déedéet laa budda nga kon hmm? am na shaafiiya yi comme kama qala zarkashi waa abi zurata wa xululu ne loola it ñoom dolli nañu ko ca la nga xam ni mooy yi nga xam ni ku ko dagg fay ko dafay dafa war nga continuer ca eh, dafa war nga continuer ca ala kulli hal masala mi masala bo xamni dafa bari wute waye comme niñu ko waxe jumhurul ulama yukhalifuna al malikiyya fi hadha ash-shafi'iyya wal hanafi wal hanafiyya wal hanabila ñom ñap nañu an nafs lu laysa bi shuru'i yajibu illa ash-shafi'iyya faqad istasnaw wal walxajja wa qila aydan al udhiya amma al malikiyya fastasnaw hadhihi allati dhakaraha al hattab الذي قرب لك هذه المسائل كن آه، ووت بريلا دونت امنا سي مالكيه يو خامني صح خالف المالكيه فيما ذهبوا اليه ومنهم محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير لتفسير بو ام صلو بله خامني كان مالكيا وكان مفتيا لتوفي تونس ومع ذلك خالف المذهب في هذه المساله limu gis rek mooy la an naflu laa yajibu bi shuruci fii kon loola mooy lu masail yooyu buñ ca jógee ñu dem ci meneen mas yeneeni masala yoo xam ni ajootul ci li nga xam ni mooy alxukmu taklifi kon foofa la ñu paree ci alxukmu ma yataallaqu bi alxukmi taklifi ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالحكم الوضعي الحكم الوضعي مبقلة تعريف ya nga xamni ño ñoo ciosan ta moy mooy ñetti mbir yi di as-sababu wa ash-shartu wal mani'u sabab ak shart ak mani' moo mu ne ma min wujudihi yajiu al-adamu wala luzuma fi incidaamin yu'lamu bi maanicin neena ma lépp lo gis lo xamni ni yajiu adamu ñaka amuk jëf dana dik ñàkk amuk jëf dana dikk min wujudihi ca amuk loola loo gis ni ñàkk amuk jëf dana dikk min wujudihi ci sababuk amuk loola wala luzuuma fin idaamin te ak ñàkkam taxut jëf am nee na yulamu dees na ko xame bi maani in ne loolaa tudd maane maa lii nga xam ni yajiul adamu ñàkk amuk jëf dana dikk min wujudihi ci sababuk dikkam ci sababuk amam fa ala sabilil misaal alxayd mbërëg am na ba mbërëg amee ba mbërëg dikkee euh, julli ñàkk julli amatu ba mbërëg dikkee woor amatul kon maa lépp loo xam ni ya jiul adamu ñàkk a jëf dana dikk ñàkk julli dikk na min wujudihi ci amam mooy comme ci amuk mbërëg comme ñàkk julli daa dikk lan moo waral ñàkk julli mbërëg mu am waaye it ñàkk amuk mbërëg it taxut julli am ndax ndaw sii gisut baax waaye bañ naa julli kon ñàkk amuk mbërëg taxut julli am moo tax mu ne wala lu zuuma taqontewulaak fin idaamin ci ñàkkam ñàkk amam taqontewulaak e, amuk jëf jë waaye boom bu amee moom jëf jë munta am bu mbërëg amee moom julli mënta am waaye mbërëg ñàkk na du taxit julli am motax tax mu ne wala luzuma fi na idaami su dee ngeen ko def neena lu mel nonu yulamu bi mani'in mom lañu duppe xame ko ni moy mani mani gogo nak ñetti xaj la yamnau lid-dawami wal ibtida mani go xamni dana la té tàmbali jëf waye dana la té sax ca dana la té dana terek tàmbali terek sax ku ñu may ab liir guy nàmp dagan na wala daganut dagan na takkub liir liir buy nàmp sa doomu bàjjen ñu ne yow lañ ko dencal fas sëy ba ca ba mu jutoo wala mu feragut ñu fasal la sëy ba sa doomu nijaay feragul ñu fasal la sëy ba na ko sharia nangu na ko e, ñu toog ay fan yaay ja génn yaay ja génn mu xiif di jooy sa yaay jël ko nàmp ولا سير جل كنام بالك دق دق دق سيب نوي ده تاسنا هم سيب في ريكونا كن نامبل ديت نامبل مانع لا جو خمني يمنع من ابتداء النكاح ويمنع من الدوام على النكاح ليرنا ده لي؟ ليرنا kon loolu maani la goo xam ni yamnaul ibtidaa wa dawaama maan ñaar yépp la lay lay tee mu nekk dana na tee tàmbali jëf ku sa ndey nàmpal wala sa jigéen nàmpal ko xaram na ci yow nga nga tàmbali takk nga tàmbaleek moom mu sëy waaye koo sëyeeg moom ba pare mu toll ci jamonoy nàmp sa ndey nàmpal ko wala sa jigéen nàmpal ko sëy ba munatoo caa des loola mooy bi maaniin yamnau li dawaami wali ibtida maani goo xam ne dana tee dawaam waaye dana tee al ibtida bay bi bay bu xaw a lëj la ngeen bàyyi ci xel aw aaxiril aqsaami yenn saay nga gis loo xam ni yamnau al ibtidaa faqat yamnau al ibtidaa faqat aw awwalin wa loo xam ni yamnau dawaama faqat أو آخر الأقسام لو تخمن آخر الأقسام يعني آخر القسمين ناخ داف لا تودل الدوام والابتداء بان لا مجي تود الابتداء موتخ آخر الأقسام في ابتداء لاي دل لير أو ولي ابتداء كون أو آخر الأقسام موي ولا مدون مانع للابتداء فقط أو أول ولا مدون مانع للدوام فقط ala nisaai gii nag wuute am na ca ka tawli listibraai wa rabaai mu indi la ñetti misaal yëpp almaaniu liddawaami wal ibtidaa misaalam mooy lan al rabaa almaaniu li li li lil ibti lil ibtidaa faqat mooy ban mooy al istibra mooy al istibra la nga xam ne yamnau addawaama faqat mooy at tawlu ak tawlu tawlu mooy man ndax eh, man la fa man lam yastati minkum tawlan an yankihal muxsanaati fa mimma malakat aymaanukum ku amut ku mënta yor gor amut cenu gor sañ naa takk jaam waaye yàlla ne nag bañ koo takk gën ndax boo takkeeb jéebéerub jàmbur doom ju ci juddu jaam lay doon te yow gor nga fexel sa dom buñu dugg ci njam nga dem nak takkub jam nek ak mom ci sëy dem ba ci bir nga man nga mana a gor niza ñëw na ci ndax fey ba day deñ wala da nga cey continuer motax mu ne aw awalin faqat ala niza yani fi hada al awal mooy addawaam tara attawlu ala man tazawaja amatan lak na ko tawlu bette ci sëy ba ndax dana sax day sax ci sëy ba wala du ci sax kon loolu bii nag moo tax mu ne la bii nag am na nizaa bayna al ulama mu ne am na nizaa am na xilaaf bayna al ulama moo tax mu ne aw awalin wala maani goo xam ni yamnau dawaama faqat ala nizaain yani ala xilaafin baynahum fi hada ka tawli listibraai warrabaai lu mel ni kattan kattanu mën a yor gor listibraai ak soxna soo xam ni da nga koo jënd jéebéer joo xam ni da nga koo jënd wala koo xam ni euh, dafa am ngànt lu tax euh, imma mu jóge ci loxo xam jéebéer la wala koo xam ni amaana euh, dañ ko xaddoon ci ci zina ndax dafa am ku mu àndaloon bu boobaa kooku du jàpp idda waaye dañ koy stibra xeet yu mel noonu istibra googu la jublu fii mooy ngir setlu ko xaar mu set comme boo jëndee jaam bu jigéen da nga koy seetlu surtout jaam boo xam ni borom da ko defoon lal da ko defoon lal taay ko bu boobaa eh, da koy seetlu il faut nga istibra ko li muddati shahrin wahid kon istibra googu eh, dafa bokk ci nga xam ni maani ala eh, li al maani lil ibtida la budda an tantadira hatta tabraa summa tujaamiuha ramu ne aw awalin faqat ala nisaai كالطول الاستبراء والرباع موجوغي تي لول نلا ولازم من انتفاء الشرع فنا بيت ليرنا ولا ني ديلو ليرنا من ولازم من من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى بالضبط من لو مو دفين ولازم من انعدام الشرط فاكي موم ولازم من انتفاء الشرط واي نيار يبن الله ولازم من انتفاء الشرط ولا من انعدام الشرط اه عدم مشروط ليرالنا لوي مانع لغي من لاي ليرال لان موي الشرط مو نيكون شرط موي لو خامني موي لو خامني يلزم من عدمه العدم نينا شرط موي لو خامني بن عدامه ينعدم المشروط بن عدام الوضوء tanadimu assala asala, tax mu ne wa lazimun minin fis minin idami charte dafa takko dakko shart shart bu dakko lañu ko shartal day dal di dàq du meuna amati la daasi dabti ci nga xamni ñoo teunk masa ilia katu masa ilia lola lañu wax ne ida udima chartu udima al mashrut ka sababin nee na moog sababa ci li moy ni sabab bu amut jëf du am musabab du am kon charte ak sabab ñoo bokk ci ni bu ñu amut jëf du am waaye nag bi nisbati li sabab wa dal wujudu laazimun minhu amuk musabab nag charte la ci sabab ba am julli tisbaar charte sabab la ca duxulul waqti duxulul waqti kon musabab يتوقف وجود المسبب على وجود السبب ويتوقف آه، واما السبب فبانعدامه ينعدم المسبب كون سببك شرط دانيو يمتيني بنيو اموت جف جدو من ام دانيو يمتيني بنيو اموت جف جدو من ام واي الشرط سبب داتا لموتك شرط موي سبب بو امي لاي جف دي من ام waaye charte mën naa am te jëf du am Ki jàpp te te julliwut charte julli mooy lan bokk na charte julli jàpp ki nga xam ni tataxara jàpp na toog bañ julli kon la leen boole ñoom ñaar la leen niroole mooy ni ñoom ñaar ñëpp bu amut jëf ja du mën am masuk gaag masabab ba du mën am léegi nag beneen côté bi nag dañ caa wuute mooy ni sabab pour mu sabab ba am bu da sabab ba am waye chart man na am ta fek mashrut ba du am du leer na de motax mu ne kasababin mok sababa yem ci ni bu amut musabab ba du am wazal wujudu lazim waye nag ci gi di sabab اشاره الى القريب hada wada yani والسبب وجوده لازم وجود المسبب لازم من وجوده السبب وجود المسبب وجود المسبب لازم من وجود السبب واي وما في ذاك شيء قائم واي كل اللي مم دارا دو تخيل غير مم جفنا بشرطني بشرط امي جف ام موتام وما في ذاك شيء قائم كل اللي مم دارا دو تخاوي ndax ki japp آه، baña julli man na am mu ne léegi ñett yii di assababu wa chartu wal maania misaalam mooy ni wajtamaa aljamiu fi nnikaaxi wa maa huwa aljaalibu linnajaaxi kon ma ñetti yépp seen misaal daje na ci sëy waaye it seen misaal daje na ci gëm yàlla aljaalibu linnajaaxi bi maana al iman jaalibu linnajaax lan mooy indi texe al iman wa maa huwa aljaalibu linnajaaxi ak li nga xam ni mooy indi تخي ألك كمنا واجتمع نيتي المانع والسبب والشرط دجينا نيو في النكاح مثالا فانو دجي في النكاح موين النكاح سبب في وجوب الصداق وزي أمي نتكلا بوابا تشان لورنا إذن النكاح سبب في وجوب الصداق كوتاكو تشانا مورولا takk ga nga ko takk nag moo tax canam mooy sababu can nga war la mu ne nikaaxit chartun fii subuuti talaaq ki nga takkut munoo koo fase ki nga takkut man nga koo fase munoo koo fase kon nikaax charte la fii subuuti talaaq nga gis nag njuumte gi kilifa yi di def yenn saay sa doom soxnaam nekk fi nga am ak moom problème neexu la ci kër gi wala soxna si bari bari bari jikko ci kër gi jubadi nga faseel ko ko déedéet munta nekk gis nañ ko ba tàyyi jabaru jàmbur kenn du ko fase الطلاق لمن أخذ بالساق الطلاق لمن أخذ بالساق كن طلاق شرط لا النكاح شرط لا في ثبوت الطلاق نينا باتاي نكاح مانع من نكاح أخت المنكوحة نكاح دانا نيو دون مانع موي كيغا تك أيدا ميغا تك داي تخنا مبين مي حرام لا فيك مونغي جي كون nekk gi ayda nekk ci sa loxo tax na mbeen mënut a dajeeg ayda ci sa loxo mënoo takk mbeen ndax ñoo bokk ndey ak bàyyi wala ñoo bokk bàyyi wala ñoo bokk ndey kon gis nga ñett yépp na mu ci jaje an nikahu sëy nikaa sababun fi wujubi sada shartun fi subuti talaq maniun min ma min nikahi uxtil mankuwa hmm? kon lola charte yi gis nga eh, yooyu yëpp eh, mawaani yooyu yëpp ñett yi gis nga na mu ci sëy bu fekkee ni ci wàllu gëm yàlla la mooy ni al imaanu sababun fi sawaab gëm yàlla sabab la ci nga ci ñu mën laa bundal bindal tuyaab ku gëmut yàlla lu mu def du ca am tuyaab sarax su mu mën a def ndimbal lu mu mën a def lu niru lu baax lu mu mën a def du ca am tuyaaba kenn du ko ca bindal kon al imaanu sababun fi sawaab waaye al imaanu chartun li sixati taa ki dugg ci jàkk fekk lam yuslim fekk ñuy julli mu julli julli googu taa la waaye min shuruti sixati taati al al iman iman it maaniun min al qisaasi ida qatala muslimun kafir ab julit bu rayab yéefar laa yuqtasu minhu ndax lan imaanam moo tax laa yuqtasu minhu bu fekkee ni nag kamu rey daa bokk ci ahlu dhimma wa in kaana min qawmin aduwun lakum non non bokkul ak boobu bokkul ak boobu almuhim bu fekkee ni ahlu zimma la am na yeneen yu ca war comme ni mu ñëwee ci alquran ak ci hadis yonent bi waaye bu fekkee ni jullit dafay rey yéefar kenn du rey jullit boobu bu dee ahlu zimma la nag am na lu ci tegu waaye laa yuqtalu muminun bi kaafir kon gis nga iman gis nga ni sababun fi sawaab waaye chartun li sixati taa waaye it maaniun min alqisaasi in qatala muslimun kaafira defe naa loolu mooy darsu tey xanaa leer na it sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam